sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey inna allazina baayahu rasula bi xidmatin qad baayahul jalila inna allazina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 wala xawla wala quwwata illa billahi alaliyu alazim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu mbokki jullit yëpp di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen waaye ñi ngi ñaan suñu boroom subhaanahu tabaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njéggalam mu mel ni nag dañuy dellusiwaat siwaat ci suñ jataayal yóbbulum ndaw ñi muy jataayal xam-xam di jataayal fàttalikonte ci li nga xam te ni moom lañu sunu boroom subhanahu wa tabaraka dénk ñu nekkoon nag doon jàngale téere bi ñuy wax zaadu zawit taxallumi jotoon cee jël ay bindu yu njëkk kon ñu ngi tàmbali suñu kemtalaay kàttan ci bindu tay bi bindu tay bi nag mi ngi tàmbalee fi sëriñ bi di waxee ne fasaarixu na ngeen gaaw leel xel mi jëm ci xam-xam ajmaina mboolem seen xaasidiina mbir mu ngeen di way jublu di wajhi zil jalaali ñeel yàlla ji nga xam te ni mooy aji màgg xabla tasadduri njëkk seenu jiital wal infiraadi ak ak wéet bi si ci bakkan wala atbaaxi ak woy topp ya fi fii tamaadi ci ak sax kon mi ngi dénkaane di wax ne maa ngi di dénk na ngeen gaawantu jëm ci sàkku xam-xam sàkku leen xam-xam ci bépp xeetu xam-xam boo xam te ni xam-xam bu am njariñ la xam-xam boo xam te nii bu lay dimbali ci sa diine la bu lay dimbali ci sa àdduna la na ngeen gaawantu dem sàkku ji ko te boo leen koy sàkku na ngeen ko sàkku te yàlla rek tax te balaa ngeen jiitu ay nit di topp ci seen ginnaaw na ngeen fexe ba xam xam gu wér xam yoon wu wér woo xam te ni yoon wu leer la woo xam nii kat ñi ngeen jiitu ñu topp ci seen ginnaaw di nga leen di ngeen leen teg ci yoon wu leer te yoon wu mooy yoon wu sunu borom subhaana tabaaraka wa taala bëgg te mooy yoonu sunna si yonente bi sallallahu alayhi na loolu na ngeen ko sàkku bu baax ndax li muy bañ mooy nga jóg jiitu ay nit topp sa ginnaaw wala ay nit jublu la ba pare te xamoo fa nga war a jaar moo tax mu ne is ngir zulumaatu bid'a ixtiqaadi lëndamuk topp pas-pasu bidaa takku fu danay fekk an waaram leer ya anil xibaaji walif jaam ya fasaarihu kon ni ngeen gaawantu turran mbooreem seen ilaa taxallumi jëm ci ak xam-xam jëm ci ak xam sàkku xam-xam wajaahidu te ngeen di jihaad an nufuusa ak bakkaneex fi tafahumi ci dégg-dégg mu na ngeen dëddu bakkaneex na ngeen dëdd dëggu dëddu seeni bakkan fi tafahumi ci dégg-dégg wala tawaqiruhu te bu leen yeexe yaa zubaamu yéen ndaw ña li kibaari ba ci seenug mag fa na naka loolee kat xusraan ak pertaange mu ne kon na ngeen xam ne topp bidaa dafa am ak lëndëm ni nga xamee ne topp sunna noonu la amee ak leer topp bidaa noonu la amee ak lëndëm kon nag bu fekkee amoo leen xam-xam bu wér ba topp bidaa ni nga xam ne topp googu yi ngeen topp bidaa ak lëndëm la goo xam te ni dina dox seen digganteeg topp sunna ndax leeru topp sunna googee topp gi ngeen di topp bi daal dina dox ci seen diggante muy ak lëndëm goo xam te dina fexe ba leerug bi daa leerug sunna googee doo leen ci jot mu ne na ngeen gaawantu yéen mboolem seen jëm ci xam jëm ci sàkku xam waaye sàkku xam-xam kat mënoo ko am te dëdduwoo leen seen bakkan seen noflaayu bakkan yi ngeen dëddu ndax ku bëgg sàkku xam-xam bëgg am xam-xam bu wér waaw di nga dëddu sa bakkan jaayante sa ak sa bakkan di fexe di jàng-jàng wér ak dégg-dégg bu wér ñu ne tamit bu leen bokk ci ñi nga xam dañuy yeexe ak njàng yeexe ak jaamu yàlla yeexe tàggat seen bopp ci lu baax naankat dañuy bàyyi ba nekk mag nee na bu leen bokk ci ñooñu ndax loolu ak pertaanga la ndax nit ki bu tàggatee boppam ba muy nekk ndaw ci ak jaamu yàlla ci ak topp yàlla ci sàkku xam-xam bu demee ba nekk mag day fekk cëram yépp miin ko lool mu daal di noppalu waaye fekkee ne dafa bëgg a dem ba nekk mag ah loolu dina nekk ak coono gu rëy ci moom mu ne kon na wattandiku loolu mu ne fal mawtu dee aqrabu moo gën a jege wa adhaate moo gën a jomb wa amarta moo gën a wex wayaati te dina dikk baxtatan ci bette wa maa xuuta déet moom ma faran muy aji muy aji ñu koy aji daw mu ne kat na ngeen xam ne dee kat day ñëw te buy ñëw kat xamoo jege ne xamoo sori na te dee jombut moo gën a jomb maanaam faww dina dikkal doomu aadama bi te moo gën a weex lépp lu jiitu dee dee gën a weex moo gën a weex lépp looy gis mu ne te day dikkee te day bette te moom amut fen fus mën a daw jaar fenn amut de waaw maa xam déet moom mu faral mi ngi aji daw amul fenn fus mën a jaar ba daw ba daw dee kon nag bu leen yeexe seeni sàkk xam-xam seeni topp yoon sunna seeni tamit sallallahu alayhi wasallam seeni topp lu baax balaa dee di leen dikkal ndax dee day bette te dee dafa weex te dafa jege te moo gën a jomm ñu kenn xamut kañ ngay kañ ngay faatu kon nag ni ngeen góor góor góorlu topp ci lu baax topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa kon loolu lu jar bàyyi xel kon dañuy wàcc fii suñu kàddu di yemale fii kon suñu bindu tay di jox digée daje ci beneen jataay ñu yeggale suñu njàngale insha allahu rabbi ngi ñaan suñu boom may ñu diggal topp suñu boom doolu ñu sutura tey ak ëllëg ngi sant ñëpp képp ko am na ngay teewlu jotaay bi ñu ngi lay sant di la jox sa wàccuwaay te di la ñaanal jàmm di wax ne in uridu illa al islaaha mastataxt wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh